auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabil umi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bismillah in wala yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xamante ni yéen a taamu safoo itam tey seetaan télé bi nga xamante ne mooy Amsa TV di télé solution ñi ngi am mbégte bu yaato yaato yaato li koy waral tam mooy tànn gi nga xamante ne taamu ngeen ñu di ñu topp di suivre suñuy émission moo waral tam ñuy am mbégte saa su ne ko tam ci yéen gannaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ñaan laaten yàlla kenn ku ci nekk fa mu nekk tam lay bëggam ak bébé tam yàlla suñu borom yi nga xam ne moo jeexal dara yal na yàlla jàppandalal ko lépp ci daraje yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam tey ñu daal di dellu siwaat seet siwaat ki nga xam ne moom la ñuy tàmm di ko seet si di Cheikh Moustapha Dieye bëgg a waxtaane waat ak moom ni koy faral di baaxoo di defee saa su lenn ci xam-xam waaye lenn itam ci nekkinu doomu aadama bi waaye itam lenn tamit ci tolluwaayu jamono macha allahu rabbi ba tax na rek ni ñuy def mooy dañ koy daal di nuyu siyaar ko waaye itam daal di dalal ci biir jotaay bi ne ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. salaam wa rahmatullahi yàlla. alhamdulilah. julli ci yent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi waajur yi. Mm-hmm. ne ci biir suuf ak ñi fi des nu ñaanal waajur yépp yàlla guddal seenug fan ñi fi des guddal fanuk ñi leen di ñaanal guddal fanuk ñi am seenug yéene waaye it di ñaanal ñi tëdd ci biir suuf gépp yal neen yàlla jéggal te yërëm leen ci darajey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di baaluwaat àq mm-hmm. di ziyaaraat mm-hmm. waaye di dolliwaat di ñaan yàlla te di ko sant fu nu toll mm-hmm. di wax ni ñi ngi nuyu nag mm-hmm. te du nu dañ di leen nuyu ak di leen sant di leen gërëm ñi nuy teewlu ci anam bu ne ci matuwaay bu ne ci yéene bu ne ci xol bu rafet bu ne seetaan la bu nit toogee ba ni la dama lay seetaan bay nelaw ci suma te téléphone. ndeysaan. ma suma ma jënd connexion 5000 francs waaye Serigne Moustapha léegi yaa tax may jënd am connexion mille francs. macha allah loolu noonu. sant yàlla la. Mhm. goo xam ni du Moustapha du moom yàlla la. dëgg di santit ñi nga xam ni danoo jël seenu téléphone. te mhm. wax ni Serigne Moustapha. julli nanu suba mhm. julli nanu tisbaar julli nanu tàkkusaan mhm. waaye dañuy defal dog sa waajur wi nga wax nu ñaanal ko ndeysaan macha allah kooku amoo seen fay jaadu wallaahi amuma ko wallaahi ndeysaan waaw manuma leen fàtte mhm. ndax ku la fàttewul fàttewul la tax ba kenn mënu fàtte kooku mënoo ko fàtte waaye nanu xam ni it ñu nit ñi ngi leen di ñaanal alhamdulilah ñu nit ñu ngi leen di ñaanal ci sunuy buumi xol mhm. ci sunu biiri xol mhm. waaye ci sunu yëg-yëgiru yal na yàlla nangul ñaan boobu ndax bu lool lépp amee mhm. yéen ñi nga xam ni yéenay rafetal teewal fi askan wi ni jàllee kàdduy askan wi kon gàcce ngalaama ci ñoom ak ci yéen macha allah na leen yàlla fay sagal leen suturaal leen te musal leen ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñu tëdd ci hôpital yi di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Moustapha jërëjëf ci ñaan yi waaye tam jërëjëf wax dëgg yàlla ci kàddu yu rafet yu am solo yooyu macha allah rabbi di la wax ni rek wax dëgg yàlla mbégte boo ci am mm-hmm. uh, nu nit am nañ ci bu ko raw wax dëgg yàlla te ni nga ko waxee mm-hmm. kenn du kenn ñi nga xam ne ñi ngi topp du suivre ndax li may faral di wax nee naa nit ñi baax rek a leen ñor. Mm-hmm. nit ñi lu baax rek a ah, leen ñor. Ah, nit ñi bëgg baax rek a leen ñor. xëy na jamono tëradi. Mm-hmm. bëri yu ci laxasu yu mu mm-hmm. àndal yoo xamante ni. dana dem ba nit ki tàqalikoog sa gom ci lu bëri bëri wala dootu xam sax la na war a def. waaye euh, koo fi koo koo wéetal. boo waxtaanee ak moom benn baat ñaari baat ñetti baat. xam ne ak mbaax rek ak mbaax rek lay wër. ak mbaax rek la bëgg ak mbaax rek ci la fas yéene bëgg sa fas yéene tënk boppam. kon yal na yàlla sama borom moom mi nga xam ne moo am sañ mën tey def yal na defal ñu ñi bëgg baax ñëpp yal na yàlla baaxal leen Mm-hmm. ñi ko bëggul tamit yàlla na yàlla dëpp seenum xel mm-hmm. ba ñu ba ñu fekk si ci ci ak baax wax dëgg yàlla ndax am na ci ñoo xam ne seen xel a dem ba mënatu ñëw mm-hmm. xalaatatuñ sax lu baax waaye ñu borom moom jeexalul dara te mën na lu ne kon yàlla na yàlla dëpp seenum xel ba ñu indi leen ci wax dëgg yàlla ci ak baax macha allah rabbi fi nga daanele rek euh, santaat santaat la bu baax a baax euh, gërëmaat la ndax wax dëgg yàlla gis nañu jàpp gi gis nañu taxawu gi waaye gis nañu tamit bàyyi xel gi nga xamante ni yaa ngi koy bàyyi xel askan wi saa su ne euh, rawatina suñu jëmm yu xeebu yi hmm. lu nu ne nga nekkandoo ceeg ñun hmm. lu nu jàpp nga jàppandoo ceeg ñun ba hmm. mel ni sa yëfi bopp la kon mu néew mu bëri noo ngi lay sant sant goo xamante mënees na koo am fu ñu ko tàmbalee waaye wax dëgg yàlla yamuwaay moom daanaka daanaka du du du am kon dañuy ñaan yàlla suñu borom rek suñu yi nga ni yaa ngi koy am naalal ko askan wi suñu borom defal la ci lu kawe ak njot ci dara ji Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye ci barkeb sa soppe ba mm. sa xarit ba mm. cheikh naa mm. cheikh ahmed tidiane chérif radiallahu taala anhu ñaan ci barkeem ba yal na barke ba topp la topp mbooleem ku ñuy teewlu wala muy dégg kaddu yi yal na sama borom taftal lay barke boobu daraje yonent yàlla muhammad su ko defee rek xam naa ni fi ma bëggoon ñu tàmbalee tey suñu waxtaan mm-hmm. gannaaw bi ñu sante yàlla bu baax julliwaat ci yonentam bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. di waajal tam wax dëgg mm-hmm. yàlla ziar général a a woon yow mi xam naa ne bu nu noppeeg yow léegi yaa nga jëm ca yoon wa waaye ñi newul ci biir réew mi sax fu nu mën a nekki tamit noo ngi koy waajal ndax doon na bés boo xamante ni hmm. ñaari at a nii yoo xamante ni mbas mi tënkoon na ko hmm, hmm, ba amul wallaay mu leer ni kon jaam yàlla yi soppe yi am di jàmm yeeg wëllëre yi xarit ñëpp namoon nan ko muy sunu sang bi nga xamante ni moom moo la féete nii ci kaw wax dëgg yàlla macha allah war a Seydi Aboubacar ñuy waaj ziar boobu yan kaddu ngay soññ jaami yàlla yi nga xam ni ñi nga bëgg a dem ci ziar ba ak naka lañu ñu war a demee ci ab ziar mooy ziar manoti waaw day sëriñ bi ñu ngi santaad yàlla ñu nu bokkaloon fekke daaw te fekke wonu ren ngi santaat yàlla ñi nga xam ni fekke fekkante woon na nu démba rekk te fekkante woonu tey ñu ngi santaat yàlla ci waxtu wu nekk mu am ñu muy yóbbu te mu banu fi ba léegi te xamuñu lu tax ba mu banu fi waaye di ñaanal sunu xalifa général yi nga xam ne boo jëlee bopp yi jël askan wi lépp di mbokk bokk lépp yam ci lépp di waxante ci lépp di nëbbante ci lépp lu ñaaw doo ko dégg ci ñoom mukk ziare général di ziar boo xam ni ñu ngi ñaanal sunu xalifa bi mhm, yal na yàlla gotti guddal fanam amiin yaa rabbil aalamiin yal na yàlla dolli guddal fanam allahumma amiin yal na ko yàlla dolli wér amiin na ko yàlla dolli wér ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi di ko ñaanalit mhm. njabootu ahlu mhm. si yéen gépp di ko ñaanal ahlu Touba ki laa laayeen di ko ñaanal ëhlu njabootu maam seex Seydil Hadji Rawhan waaw su ma doon njëkka di wax sax bu njëkke leen ci dafa mel ni ni leneen la waaye ndax noonee dafay gën te xam nañu la may wax di ziyaare xalifa ba macha allah waaw sëriñ Ousmane mu maam alaaji Lamine mu maam Cheikh Seydil Hadji Rawhan di alaaji Ousmane waaw di wax ne sëriñ bi ziyaar xalifa bi bu dee woote ziyaar muy sëriñ Babacar si radiyallahu taala ndax eh, ba mu koy sos sos yombut te ba mu koy sosit ay sos barewut woon mu bëgg mu cay jàngale ni xam leen ni benn ngeen ndax nanu bàyyi xel ni mm-hmm. lii di màggalu sëriñ fàllu gi mm-hmm. lii di ziyaare général mhm. lii di yeneen mhm. nanu bàyyi xel ni lafay fay xumba lépp du ay tijaani kese ak <laughs> nanu bàyyi xel lool mhm. kon ñi ko sos lan lan ci jublu benn ngeen ay mbokk ngeen lu sell leen fi indi bu fi kenn xoole sa morom leneen ba ñenn ñi sax dañu ciy barkeelu macha <laughs> kon loolu rekk jàngale la benn mm-hmm. ñaareel bi ci tegu mooy léeg nit ñi fu ñuy dajaloo bu amee yu fay xew lu araam la mm-hmm. ma ni loolu jarul di wax sàccaa ngi dugg si jàkk bis bu ne. wallaay. <laughs> njaaloo mi ngi dugg si jàkk bis bu ne. wallaay ndeysaan. kan moom moom jàkk. <laughs> ka araam ak lu araam ca moom. Mhm. <laughs> waaye taxul ne no mhm. kenn du daje. kenn du gàmm. ah non non moo tax nit wax lu mu xamut. Mhm. waaye nga comprendre ko rek. gis nga ñun. lii mooy sunu jàmm. ndax am na koo xam ni ziyaari général. lekku fa naanu fa xam nga lu mu fay def laa illa allah xam nga lu mu fay def mm-hmm. sallallahu ala muhammadin xam nga lu mu fay def mm-hmm. laa xawla wala quwwata illah billah wa benna laa xawla wala quwwata illa billah mm-hmm. nga ñaan ko ba pare dogu ko ni yal na yàlla aar réew mi nga ni ko déedéet loolu jaru ko wala bi daala xamoo li ngay wax xam-xam <laughs> amoo <laughs> <laughs> loolu rekk leneen la mhm. <laughs> moo tax mag ñi kenn du ñoom te mag ñi nag naa la xamal lenn mhm. mag ñey mag ñi ndax man li ma jaaxal ci mag ñi mhm. li nu fi def kenn defagu ko fi ba léegi te kenn yokk ko itam te ñiy ŋàñña mag ñi nag bu nu amoon maam ju def li mag ñi def daanu noppi xëy na bëgg bëgg nu fàtte fàttelu bañ ba bañ di fàttaliku moo waral ni bëgg di déconcentré nit ñi hmm. fekkati yow seen bopp la ñuy déconcentré surtout <laughs> loolu nag yëfe dof la gis nga jaamukatu yàlla dëgg Seex Taala hmm. li njëkk ci moom mooy maandu <laughs> li njëkk ci moom mooy maandu bi njëkk waaw bi njëkk ci moom mooy maandu hmm. xam fi nga war a tàmbalee xam fi nga war a yem man su ma naree di di nga nit maa ngi yàq suma jaamu yàlla kon loolu li ma ciy dénke mooy ko fa dem bun fa boo fa doon sàcc buñ la jàppee yaa toroxal sa bopp lu leer lu ànd ak lu lëndëm ku fa demoon du fa def leneen lu la ca jàpp yow la ku fa defoon di fa moqi ak la ngay moqi buñ la wullee yow la nit ku ne mm. da ngay xool la jekk mm. da koy yóbbu fa mu jekke mm. tux am na foo xam ni jekk na fa mën nga fa yóbbu <laughs> mën nga fa mulli te kenn du la wulli te du yëpp de mm-hmm. ci gàttal mm-hmm. dama waxe noonu rek <laughs> ndax xam nga ni mm-hmm. eh, eh, xamoo foon ngay jëm ak moom kon détail yooyu noonu ak yeneen yu dul yooyu mooy tey nit mën na fa jóg dem fa jikkoom ñaaw mu dem fa ñaan yàlla mu nangu te man mii di wax ak yow billahi la ilaha illa ñaan naa fa yàlla lu ma gis moo tax ma la yàllay ndakaaru mhm. yàllay tuubaa mhm. yàllay yàlla ji yàlla rekk la kese ci àdduna mhm. waaye fi leer yi di tàbbee ak fi ko dogalee ak fim mu ko yaakaaree waaye fépp la ne kon ngëm-ngëm googu doy na yàqul dara nag ci sa ngëm yàlla ndax mag ñi yàlla kese lanu nu gëm gis nga sëñ Babacar Si bi dafa doy waar dafa yéeme torop hmm. te naa la xamal ni sëñ Babacar Sy demandé na lu bari ci réew mi loo xam ni nit dana ne ci réew mi te demandé woo ko waaw sëñ Babacar si gisante naag Cheikhu Tidiane Serif <laughs> muy lu leer lu kenn dul mm-hmm. werante mm-hmm. <laughs> sëñ Babacar Sy suturaal na ku naroon ami gàcc ci coobe rek yàlla mm-hmm. sëñ Babacar Sy ku tedd la ku tedd la mm-hmm. kon tey imagineel ni mu woote ci loo xam ni ba na ko fi bu yàgg cinquante cinq cinquante sept ba léegi du ay caaxaan sëriñ ba loolu di wéy ay bu ca barke yàlla newatu woon dootul am moo tax yàlla na nu yàlla fayal mag ñu baax ñun mag ñi rek la nu xam moom la nu gëm te it mhm. bu dee ay posanit nan nu rey nan ñu rey waaw kese tubaarkàlla <laughs> macha allah ni nga ko waxee léegi rek boo xoolee tam bésam bi ziar bi ni mu dëppoowee ak daaka bi mhm. nga xamante ni kon li ngay wax rajab gi yëpp yooyu ni ñu àndee ñoom ñëpp nga xam ni kon am na mbir yi laxasa yoo xam ne mooy liggéey wax mag mag ñi kenn du ñoom te bu doon naxasakat nag rek la defe naa ni kon kon kon kon kon cinquante sept ak tey xam na lu nu ci yàlla defal rek affiche mm-hmm. mooy soxla ngeen ñaan soxla ngeen ñaan nañ ci profité ñaan soxla ngeen jàmm moo waral mm-hmm. su la kasu rajab gi rëccee mm-hmm. daaka ca dàkki ko bu la daaka ca rëccee général ba nga ziar fa ndegam bëgg nga doon nag <laughs> général tubaarkàlla macha allah mbir yi loolu kese la du leen jërëjëf mm-hmm. jërëjëf Cheikh Moustapha gi tàmbale gi ndax mënuñu woon ubbee leneen doole lii defe naa ndax ci ci la ñu toll nii ci la ñu ne macha allah mu doon am solo waaye tey ji ba tey damay xool ni Cheikh Moustapha est tey jii lii ñu am ci réew mi ci mag ñi. Mm-hmm. est-ce que tey jii yell na. Mm-hmm. tey jii comme ni ñu ni ñu fiy dégg coow li fi xew fan yi bërki démb ak ki nga xam ne moo jiite woon deer ci kàddu yu mu génne woon ci kilifa ku toll ni mm-hmm. moom. ak wala tey jii ku mel ni soxna soosu nga xam ne moom it mi ngi génnaat ci internet bi di baalu ak. kàddu yu mel noonu te est-ce que tey yell na ci ñun. doomu aadama yi ñuy génne kàddu yu mel noonu mu jëmaat ci biir askan wi ak tey jii mag ñi fi jaar ñépp liñ ñu jàngal li ñu bàyyi ci réew mi ba ñu war cee mën a roy est tey yell na tey jii ñu war a doxe doo doxe tax wax waa xam nga sëriñ bi mhm. nit ñi dafa am ñoo xam ni mhm. dañuy yëg seen bopp du duñu yëg seen borom te loolu lu garaaw la ci yàlla musal <laughs> ko yàlla ci yàlla musal nit ñi da leen ni daal mhm. te yàlla na nu yàlla musal ci nit koo xam ni bu nit ñi taxawee nga jàppani dara tawatu la ci àdduna yal na nu yàlla musal ci waaye yàlla musal ci accident wu làmmiñ bis xanaa xamoon ni kii jiite woon deer mm-hmm. <laughs> ak wax jooju mu wax mm-hmm. xam nga nit léeg-léeg ngay wax loo xam ni dafa mel ni xeer boo jël war ko sànni ni ko nii sa kaw <laughs> xam nga loolu day am wallaay moom waxul ak sëriñ si de mhm. yàlla la waxal <laughs> ndax sëriñ si waxunu bu leen joxe loxo mhm. ñoom danoo leeral ci joxe loxo mhm. la ci yàlla wax yàlla dani leen yéen sëriñ si joxeloowu ma leen loxo joxeloowu ma loxo seenum njaboot joxeloowu ma loxo ku mu ci doon man yàlla lool laa leen sant mhm. xanaa loolu leer na waaye ñàkk ba ñu joxe loxo googu moom fa mu doon waxee mhm. foofa joxe loxo am na fa ku ne sañ nga jox loxo sa jabar mhm. xanaa loola koy leer dëgg yàlla waaw sa soxna de sañ nga koo jox loxo moom xam nga wax danga koy ñàkkal tegin ba di wax loo xam ni yaa ngi koy wax sax te xamuloo ko moom yàlla la waxal ni ko joxe loxo gi nga ni buñ ko kenn def yaa ngi nii sant ko raw ci biir néegi loolu la wax rek <laughs> xam nga lool rek la wax mhm. ci gàttal mhm. waaye dafa xamul la muy wax mhm. ñi ciy tuub sax ci jégg ci ñi ngi jéggalu yàlla ci wax ji sax ni koy baamtu waaw ñu ngi koy jéggalu yàlla ci astaxfirullaaha ñu ngi koy jéggalu yàlla bu wér waaye dama la bëgg a wax ni. la mu wax jigu ko. te du ko jigéen nag. Oh, hmm. <laughs> te balaa muy xam ni jigu ko. Hmm. naka keneen waxaat. xam nga moom dàq la ci am. Hmm. na ko keneen waxaat. dama ci gis leneen loo raw yee. loo <laughs> du nit ñi ñoo koy manal dara. gis nga yàllaa wax. te waxi yàlla du ay caaxaan. te yàlla dafa wax ba pare ni. def leen ndànk sax ci sama alxuraan ji bu leen ko firi num leen neexe mm-hmm. waxagul la ma wax ngeen teggi ko de mm-hmm. dafa ni sama alxuraan ji sax mm-hmm. bu leen ko firee num leen neexe rawatina nag yàlla wax ngay filistere ay nit naan nangam ñi naan duñu joxe loxo eh, nàngam sàngam yàlla na nu yàlla jéggal ci wax jooju mu wax yàlla na nu ci yàlla jéggal man waxuma yàlla na ko yàlla jéggal yam ci de yàlla na nu jéggal ñun ñi fekke wax ja mm-hmm. wala ñu dégg ko waaw kay <laughs> yàlla na nu ko jéggal sëriñ bi mm-hmm. ku ne waxal ak ku la neex mm-hmm. waaye bul wax ak ki bind sa ndey bind sa baay yow ba diine lislaam di sos fekkoo ko fi te doo ko fi fekk ñëla fi indi fekkoon woon ko fi <laughs> yow nga am Oh, man loolu sax du ba ni moom audace ndax loolu moom <laughs> do man wéradi la rek man xel mu feebar <laughs> waaye ma jàpp ni dafa am message buñ ko doon jàlleeloo rek mm-hmm. waaye xam naa ni du sunu njiit yi ñoo ko jàlleel mm-hmm. waaye it nu sant di gërëm ndax mm-hmm. man lu waaye defit dama koy wax ah, di sant di gërëm njiitu réew mi ndax bu deful woon loolu danu naan ko moo ko ko sant bu deful woon loolu mhm. dan naan la mu wax neex na ko mhm. waaye sant nanu ko mhm. gërëm nanu ko xamal nanu kayit it mi ngi fajal askan wi la ko naqadi ci kii ci li mu def waxuma nag la keneen waxoon pour mu bàyyi mu sedd ndax man gisuma wax ju gën a rëy jii mu wax gisuma ko ci àddina moo tax nag seextaa la may wax ni kilifa boo ko dee fat baa di ko jox ay legge mhm. xoolal jikko ji jikko surtout mhm. xoolal jëfin ja mhm. xoolal yeneen ya njiit day rafet jikko wallaay ndeysaan rawatina yow nu dénk ay financement yow ngay vexé diine yàlla ji waxuma nit ñi de mhm. diine yàlla ji yow nga ni danga koy vexé mhm. vexé woo ko mhm. sa bopp ngay vexé bay laal say mbokk <laughs> ndax am na looy wax nit nit bu bokkeek yow day am gàcce fi mu toog ñetteel ñaareel bi si tegu mooy ñi ngi ziyaar di màggal ci tedd nga ak yàlla ci Cambérène ba Yoff mhm. ak ahlu laayeen gépp ak lépp lu bokk ci lay laay Maxtaar Alsaan ak Seydi xam nga lu tax mhm. ba léegi mi ngi rafet wallaay ndeysaan ba léegi ñu ngi dundee yàlla mhm. ba léegi ñu ngi am cofeelu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa de moo tax ba kenn xamut ku sant lii baa laa wallaay ndeysaan laay tax ba kenn xamatul kuy jaam ak kudul jaam mm-hmm. bàyyi laay moo tax ba moom xamatunu ku nu daan naan dañ leen di tooñ ak duñ leen tooñ wallaay ndeysaan <laughs> xanaa looloo yiw alsaan ak Seydi yàlla loolu la bëgg wallaay xanaa yàlla mm-hmm. moo moo bëgg lu am sutura mm-hmm. ay yàlla bëgg lu jekk yàlla bëgg lu rafet ma la la mu def ak na mu jëfee kenn mënu ko dindi ci alxuraan ak ci hadis kon ñi ngi ñaanal mag ñu tedd ñooñu moo tax gis naa benn image bu fa xewoon ci benn soxna boo xam ni la mu doon def loolu nanu ni ca biir appel ba la waaye loola bokkul ca appel ba nu bàyyi xelit loolu <laughs> surtout waaw nanu bàyyi xel ni mm-hmm. déedéet dafa joox ci mi ngi mel ni waxtu julli jot mhm. ab sàcc ni ci biir di ràmba ay poosi jaamur munu mhm. jaawale loolu mhm. dégg naa sax ninu baayam mu xaddam la <laughs> kon xam nga ni kooku loolu di image am wallaay nee naa la bu doon jabar sax junu takk ci faratas yàlla ak sunna sayduna muhammad image boobu jekkut jekkul wallaay ndeysaan waaw te na nag hmm. lii laa loo <laughs> loolu lu mu dëgg dëgg kenn ah, loolu lan la <laughs> lan moo ci yiw lan moo ci selwiise hmm. lan moo ci tedd ak lan moo ci baax hmm. loolu nag xam nga nit bu xasee jéggalu hmm. waaye waxunu pour tey hmm. pour ëllëg hmm. ak leneen ku ko naroon def ëllëg moo waral ni ciy wax lii nu ciy wax nag surtout waaw surtout ndaxte nag sénégalais yi lu nu def mu jàll benn yoon nu yaakaar ni war na amaat ndax ndax xam nañ leen ñoom ñoom yooyu seeni façon la bu kenn defee bu jàllee nu yaakaar keneen war na def waaye laay yéen muridiya mhm. tijaaniya mhm. ak feneen ëhlu mhm. ba ci daakaa tedd gii jaasaat gu tedd gii ceneba tedd gii naa la lu ñaaw doxu fa ay caaxaan doxu fa ay ay affaire teg say lu la neex di wax lu la neex ci loo xam ni kilifa ga ko doon woote loola taxul woon mu woote ko dëgg fa neex yàlla yàlla bëgg ko yonte bëgg ko nu delluwaat di jéggalu ñépp rek mm-hmm, mm-hmm. di ziar sëñ Ousseynou Laay suma wëllëre bu tedd boobu di ñaanal ahlu laayet gépp Cheikh mm-hmm, Talla ñi ngi jéggaluwaat rek comme ni koy waxee macha allah rabbi jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral bu am solo boobu waaye itam ci soññewaat gi ndax am na solo mooy li ngay faral di wax li ko olof di faral di wax rek ñiy gàmmoog ñiy raas dem moom fi ne daanaka dunu bokk te faaw faaw raas dem gi daal da ciy am mënta ñàkk waaye bokk na tam tey tey ci yi dañuy gis folklore bu bëree bëree bëri bëri ci jotaayu ndaje diine yi. Mhm. folklore bu doy war bu ciy am. Mhm. yamatul léegi ci ndaje waaye léegi dañ koy jël di ko fooye ba ci biir réseaux sociaux yi. Mhm. tey jii ñooñu ban conséquence lan moo mën a dal ci seen kaw. ci ñu koy foowee rawatina ci biir réseaux sociaux yi. gaaw a dee ñàkk wér loo yor mu dem dëkk jaaxle dëkk ñaan gu dul dakk te balaa ngay dee jàmbat fukki tee fukki feebar ñaar <laughs> yal na ci yàlla ko wax fii. yàllaay ndeysaan. Mm-hmm. yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du waxantu. déedéet yonent leen nëbbatu. Mm-hmm. te leen nëbb seeni mbir. Mm-hmm. yow mi ñeme bët de xamoo xamoo nit léeg-léeg day koo xam ni siiwal rek ay mu ne ko naa la may boo demee ci émission ba nag ma tudd. wallaay déglul wax ji de. <laughs> am na ci nag. Oh. am na ci nag ñun sunu sëriñ sii sax ñun mhm. génération gii di ñaan. Mhm. am na ñu ko ciy def. Mhm. waaye man Moustapha Dieye laa la wax ku ma ko mas a def laa la wax na nga génnaat wax ko. bu dee mas naa la ko def ku toog ni sëñ Moustapha mas naa jël junni jox la. nee naa la génnal wax ko. bu dul dëgg nag man ak yow ba gendarmerie. képp <laughs> wallaay ndeysaan <laughs> waaw te boo ci amee loolu jëlët. Mm-hmm. gendarmerie waaw boo ci amee loolu jëlët ndax man du ma la teg muuli këra. ay pale ngay teg <laughs> xam nga lu tax sëriñ bi. gis nga nit. Mm-hmm. lu la yàlla mayit amoo ko. nu bàyyi xel loolu. Mm-hmm. bu kenn jéem a teg sa bopp lu la yàlla mayit. loolu ay caaxaan la. nit gëmal yàlla gëm sa bopp. te doyloo ko mm-hmm. wane ma wane ma mm. billaahi na nga jàpp ni ki lay siiwalal suba it moo lay siiwalaatal leneen sa musiba nu bàyyi xel loolu te am na ñu fi njëkkoon siiw te siiwatunu te mm-hmm. deewagunu de ñu fi ba léegi waaye siiwanu de fay nañ waaw ndax ña doon uppa leen fay mm-hmm. <laughs> waaw ndax ki la daan tudd ban lay dégg bu la tuddatul gëmal ni xëpp nan la ndox ah, nga bàyyi woon ko xel nag moo tax <laughs> yaay sëriñu bës <laughs> yaay jantal a ah, déedéet star nee naa la kenn la yonent bi la moom la yàlla autorise ni ko mhm. ashhadu an laa ilaha illa amul nodd goo mën a nodd boole woo ci yonent bi te mënoo fexe ba mu wér amul yàlla ne man yàlla maa ne dee ma sabaal sama aras ji di yëngu sama ngóorte yi di yëngu waaye nag nee naa la signature bi xam nga lan la hmm. sayyiduna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi <laughs> yow nga ne lan kan mooy star xanaa ko koy star moom mi yàlla ni ko inna allaha wal malaikatu yusalluuna ala nabi moo tax ku fiy woote bës daan la bës na nit ñi nite def yëfi nit. lay nite. <laughs> man seetaal. ndeysaan man. Mhm. lu ma séenul yàlla. Mhm. sama yoon newu ci. man. Mhm. ngénteel téeméeri ngént. woowal sëriñ sépp jàngal téeméeri jàng. woowal sëriñ sépp man Moustapha Dieye laa wax. lu puukaree ne man newuma ci. billaahi wal kitaabi man génnuma sama roqo bii de. <laughs> te lépp ak fay fekk nag. gëw ma yeneen nag mm-hmm. am na it ñu ma xam mm-hmm. ci samay nawle sëriñ man gëwuma yeneen yi dëgg lii may wax nag waxuma ko ngir sama bopp mm-hmm. ñépp laa ci yamale wax ko yàlla bëggul puukare yàlla bëggul loolu man su ma ko dee def waruma du sama cër bu dul woon dara sax fa ma yàlla booleel gisuma ko fa rawatina waaye certain la ñi ma gisoon ni koy def amunu ba léegi diplôme bi fay am nay jamono rajo yi boo taal mhm. diw diw ngay dégg mhm. waaye ba seen diw jeexee mbaa mhm. joxatul leen diw ñu doon diw diw déggatoo leen yàlla nañ ci yàlla musal moo tax maa ngi ñaan yàlla de man de ku may tudd nag ma tudd rek ci xol nag ma tudd rek te yàlla tax ak foo ma man di jàllee nag ndax léeg-léeg daan la jàllee nag mhm. boo jàllee dootoo ñëwati yàlla nañ ci yàlla Moustapha amin mm. jërëjëf Cheikh Moustapha leeral boobu amati na solo lool macha allah rabbi te dafa mel ni foofu noonu te ak question bi ñu war a itam daanaka xaw ñoo xaw ñoo sori yoowuñu mhm. ndax tey ji mooy ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci internet bi di saagaate mhm. wala ñuy saagaante wala ñuy waxante wax ju bon ju ñaaw joo xamante ni sëñ bi weñ weñ weñ weñ bu ko dégg sax fi mu toll ni daana fa jaare fa faatu ñooñu tam conséquence bi tam lan la war a mën a. fa man yaxmal misqaala charratin xayran yarahu. Mhm. wa man yaxmal misqaala charratin charran yarahu. ah Cheikh Talla wax yàlla du neen. déedéet. yàlla waxul wax ju baax ji rek de. Mhm. yàlla waxul jëf ju baax ji rek de. Mhm. jëfi jëf yépp la wax. yàlla wax na ci alxuraan sax ba ci internet de. toogoon si internet bi mhm. balaa ngay faatu sax yow mi doon saaga mhm. da gis nii ni saaga ya lii mooy sa facture xanaa xamoo nit ku alku rek kay saaga wala xamoo loolu nit ku alku rek kay saaga <laughs> waaw waaw nit ku al kese ngay gis muy saaga nag maa la ko wax fi mm-hmm. ku al ko koo xam ni yaayam sonal na bàyyam ba xëy dee mm. <laughs> moom mu fas yéene sonal ndax da ko doon na dafa fas yéene solal jaam yi ba ba muy dee moom laa ilaaha illallah <laughs> waaw koo gis mu toog ci internet di saaga billaahi ab fameem yiwunu maa la ko wax tey mm-hmm. yiwunu maa la ko wax tey te mm-hmm. nag toppal saagakat yi seet parce que li ngay wax dafa mel ni éducation de base. non bu ko nit ki amee du def lenn. du ko def sax <laughs> du ko def. waaw ah, <laughs> waaw. Ah. Ah. boo toppoon fukki famille ñépp baax kenn saaga ci ba mu des kenn muy saaga boo toppee ay maamam rek ay jaam lañu. waaw <laughs> waaw. ci àdduna mhm. moo tax nu def nu war a def ndànk nag mhm. <laughs> xam nga màkkatal mu karam gee léeg ni naan diw fa nga bokk di saaga waaye nanu bàyyi xel ni màkkatal mu karam gee am na ñu fa rax mhm. te seen ko dara rafetu ci moo tax nit bokk fen taxul ba nga mel na foofa am na looy tànk fa nga ko tànkee nag la kenn xamul waaye nee naa la saaga jigul kenn te xam nga ni saaga day wàññi leer xam nga saaga day um nit. Hmm? waaw. du xam nga loolu est ce que xam nga ni saaga day yëngal mbàq di ko tàngal du xam nga ko. est ce xam nga saaga doo mës a gis leeru yàlla gu muy lancé ci kaw asamaan ba ci diggante bi est ce que xam nga ne saaga doo tax ba nga gis ko. billaahi wallaahi watallaahi képp kuy saaga doo gis yonentu yàlla Muhammad maa la ko wax. kuy saaga doo gis yonent bi. Oh. maa la ko wax fii. waaye waaw maa la ko wax na si li na war de waaye ma wax la wan saaga hmm. ak fu saaga wa maa la ko wax nag oh. te wëral saagakat yi nga laaj leen ku ngeen mës a gis yéen waaw <laughs> ah, war leen nga laaj leen <laughs> kan la nu ma sa gis ah moom kay <laughs> ah xanaa iblis lan la yow ay bismillah ah? ah waaw waaw gannaaw suñu borom a ko wax moom fi mu toll moom du moom kon moom li ma la wax kay bañu ma ci examen nan ma dajaleel millions yi saagaykat dëgg leel dajaleel ma junni ñoo dul saaga nu tàllalante loxo ñaanal ku ne ñaanal sa moroom ci ku ne échangenteel sa moroom ñu ngeen dem wuti dem leen wuti te lii moo gën a yomb <laughs> il faut nit ñi di def testament il faut nit ñi di testé wu mhm. ndax ñu ngi sànk sunu bopp mhm. ñi ngi ñàkkal solo lu am solo mhm. <laughs> waaw ah, moo tax xamuñu. Mhm. <laughs> te doomu aadama dafa war a toog ba yàgg moom mu def prise de conscience ci boppam. Ah, loolu la yàlla bëgg ci ñun kon c'est pas l'appel mu nuy jox xel c'est pas l'appel mu nuy jox xol. yàlla xamoon na ni sunu xol yi dana xomaat waa lu tax yàlla ni allah bi zikrillahi tatma innul xulub euh, ay bu ngeen demee ba seen xol yi poussière mhm. ba seen xol yi xomaat mhm. ah ba leer yi lëndëm ci yéen ah dellu leen ci man yàlla kon lu ne ci yàlla ak kuy yàlla hmm. ak lan la yàlla làmboo ba naan dellu leen ci man yàlla kon yàlla leer la <laughs> yàlla leer la ah kan nan ngay delloo ci leer di xoos ci lëndam moo tax yow mi saaga may naa la loolu hmm. te soo paree sax saagaal tubaarkaal <laughs> jërëjëf Cheikh Moustapha ko ñi ko ah ñu bëgg a baax te bëgg a mucc bu ñu déglu lii defe naa ni moom keroog la ñu dakkal saaga moom ci seen xanaa xamoo ñaar ñi ngi faatu te dee mu tëleen ñaare leen koy yóbbee lan ak xale yu faatu mhm. nga lekk seen alali bàyyi mhm. sa sukuraat du gaaw allahu akbar dëkke saaga mhm. sa sukuraat du gaaw te sa làmmiñ dañ la koy génneel ci sa gémmiñ sak sukkuraat ndax bis bu ne dangay ngay fàttatutu la tax a dee mayewaat naa leen boobu. laa ilaha illallah. oh. lekk alalu jirim. waaw alalu jirim ku koy lekk. Mhm. mënoo dee ta doo yor jàngoroy biir benn. Mhm. mënoo dee ta doo am damma damma ñaar. mënoo dee ta doo defu soog ñett. Mhm. mënoo dee mukk ci àdduna. yàlla sama borom bu lay bu la bàyyee noonu it du bàyyi sa njaboot noonu. <laughs> moo tax léeg-léeg nit yaakaar ni njabootu jaamur lay toroxal fekk njabootam lay toroxal am na ñoo xam li ñuy dund seeni ndeyee leen ko yóbbu wala seeni bàyyi te nanu def attention ci leen xale yi nu daan xañ genn wàllu kaasu fonde di jox ñin daan jox kaasu fonde yu fees yi <laughs> boroom genn wàllu kaasu fonde yi ñooy wàccee tonu ceeb ci kër ga mu doon xewe moo tax ne nit ñi di def attention te gaañaa ngi ci biir gaañi mu mënu moytul gaañi daanu gaañ gaañi mm-hmm. ne nu loolu amut aywa nu continuer wi <laughs> <laughs> nanu doxal dem <laughs> a allah waaw ah, tubaarkàlla jërëjëfati jërëjëf ah. Cheikh Moussa sa ah te lii moom kawe na kawe na hmm. lool wax dëgg yàlla ndax hmm. lii lii fi ne nit ñi dafa dañoo toll ci jamono foo xam ne mooy li ma li ñu ubbee hmm. nit ñi àndatuñu ak sago demeetuñu seen xel mu sell li ñu naan Saint Esprit xel mu sell ko te lii mooy xel mu sell mi xam fi ñu war a teg suñu tànk xam li suñu borom digle xam naka nga war a nekkeek sa mbokk ak sa nawle ci biir kër te nit ñi demeetuñ loolu te kon yii mooy mooy mooy mooy sabab boobu mooy solo bi macha allah rabbi yal na yàlla fay yal na yàlla uh, dëgëral yal na yàlla mottali macha allah rabbi uh, uh, bokk na ci fii bala may génnaat foofu noonu ndax xam naa fi ma bëgg duggaat fee moom dama bëgg ñu dugg ci wàllu xam-xam bu ñu yu ni mel hmm. waaye lii dafa am solo lool ndax leçon la hmm. li naan éducation civique ak éducation morale hmm. dañ ko daan jàngale bu njëkk ba te léegi amatul ci école te fi mu ne nit bu jàngul éducation morale. Mhm. du xam dara. Mhm. dafa bokk ci ci ci cadre bi nga xamante ni mooy li ñuy wax naan fi mu ne daanaka savoir vivre. est-ce que xam nga ni léegi ñépp ñoo ko perte du xam nga ko ci waxin mooy catégorie gu mag gi. Mhm. ak gu ndaw gi. ak gu diggu dóomu gi. ñépp ko perte. li ngay wax nii. ñépp ko perte. dëgg léegi waajur da lay jur ci kër gi ba pare di gënale ay doomam. la soo amee savoir vivre doo def loolu. Mm-hmm. ndax yaa ngi jëmbat loo xamul nu muy deme te conséquence bi mën a ñëw ci sa kaw ëllëg. léegi day waajur day toll foo xam ni danu naan diw danga nga sëy diw ndax diw daf ma suturaal daf ma jox lii daf ma jox laa ba sëy booba noonee di jur ay poson. Mm-hmm. di jur ay bandi. <laughs> di indi ay mooy yàlla sax nag di indi ay fitna boo amee savoir vivre doo ko dudde waaw bu ndaw ñi di soxool ci mag ñi te mag ñi newunu fi nu war a ne kon dama jàppani ni antenne bi ci kaw dafa manqué ñaari baar ba ci suuf mu gën a ti raw <laughs> kon loolu beneen affaire la mm-hmm. kon est jotul mag ñi ak ndaw ñi ba ci ñu digg doomu ñi toog léegi da ngay gis xale bu ndaw amagul ay at tàmbali saaga ndax yaay ji jur moo koy jàngal saaga baa baay bi ko jur moo koy jàngal saaga ni naan xale la boo ko dooree yaay ji mer bay fut fekk te yoo xale bi mu ngi posone boppam ndax dana saaga koo xam ni fa lay jógee di am jàngoroy taab baa koso kosa baa nu naan dafa jekk rek ni naan dëmm yee ko jàpp fekk te yoo yaa lor xale bi yaa ko posone moo tax nee naa la fi bët di tegu bu fa xel doon yegg nit ñi daanu defaraat seen toogaay ñun nag moo tax sunu bakkan yi léeg dañu koy teg ci sunu njaboot mu jaral nu lu ne ñun bañu nu yar njaboot ba dem ci fu ne bañu nu ko de <laughs> sama baat ci kaw bañu nu ko yar njaboot ba mu bindal nu convocation yóbbu nu fu ne bañu nu ko de dëgg lu ne la nu jaral nag mhm. <laughs> waaye ku nu ko nar a yàqalit jaral nanu lu ne mhm. te nu demee ci kanamu yàlla du nu rus waaye manalu ma ko dara ta nga onk ko ba indi ko manaluma ko dara ta nga fayal ko jàng ba indi ko mm-hmm. loolu éréel la musiba la mm-hmm. te gënut concertat la école yu mag yeeg yu ndaw yi bu ma ko dee wax nag mooy mag ñeeg ndaw ñi ñépp dañu war a jàngalewaat mm-hmm. nu defaraat sunu toogaay te xam ni yàllaa fi ne te lépp war a rafet surtout loolu macha allah jërëjëf Cheikh Moustapha amate na solo loolu macha allah war bi xanaa rek euh, question bi nga xam ne moom laa bëgg ñu jeexale ko ci actualité ak li nga xam ne moo tënk àdduna ak dundi ni doomu aadama bi mooy tey jii dañu gis ni euh, waxtaan nañ ko keroog rek ci suñu jotaay yi weesu maanaam euh, lii tëj doomu aadama man dama jàpp ni gannaaw à part njaaloo ak li nga xamante ni mooy tooñ mm-hmm. leneen lan mooy bokk ci li nga xam ne moo mën a tëj doomu aadama bi ba nga xamante ni macha allah rabbi euh, day umu ndax ba bañ ko xoolee tey jii cheikh bi chômage bi bëri na ci réew mi. Mhm. chômage. Mhm. maanaam ñi am métier di taxawaalu. Mhm. bëri nañ fi. ñi nga xam ne amuñu métier bëgg fu ñu ne. bëri nañu fi. te boo koo wax mu ne damaa tëju wala damaa nangam wala damaa nangam. waxtaanoon nañ ba ni fi ne njaaloo moom bokk na ci liy tëj doomu aadama bi. tooñ bokk na ci liy tëj doomu aadama bi. waaye ak la ak la nag lan moo mën a tëjaat tam doomu aadama bu weesoo ñaar yooyu. waa xam nga lii tëj doomi aadama bare na torop mhm. toog ci say dàll dana tëj doomu aadama su mi say dàll toog ci toog ci waaw sëñ bi kon réew mi ñëpp tëju <laughs> xanaa xamoo su mi say dàll toog ci dana tax mën ngay ligganti lu ne mu taw a sotti ñi nga fekk ni toog seen dàll ñëpp danoo jaaxle ci problème la ñu toogee yàlla xam na laay <laughs> laay la day tëj doomu aadama oh. waaw bàyyi woon ko xel seet waaw ah, ah, day tëj doomu aadama bu baax. non sëñ bi fi damay damay imaginer fi man ñi ma romb ci mbedd mi ñu toog ci seeni daal ku ci ne dëgg moo waaw day tëj doomu aadama waaw soluk tubéy taxaw day gàttaluk fan di tëjuk doomu aadama sol sol tubéy di taxaw gënut day gàttal fan tey day tëj doomu aadama bu kon booy sol tubéy na war nu war nu war di yegg ci kaw lal wala toog ci suuf dafa gën fopp sax fopp waaw waaw jël say weex di ko dagge sa gémmiñ day tëj doomu aadama boo dee jigéen nga foo sëy it da nga ñëwaat <laughs> te ñam woo toggoon du doneex <laughs> <laughs> tëj doomu aadama waaw di dëkk njaaloo tey bëgg di sangoo alxuraan it day tëj doomu aadama hmm. da koy tëj bu baax sax te heure bu ko bàyyee xel te bawu ko su bàyyeewul sangu alxuraan gi baa bàyyiwul njaaloo gi mën na koy jural yeneen mu naan dan maa liggéey dan maa nàngam dan maa nàngam dëkke tooñ ay mag day tëj doomu aadama kii day gàttal sax fan waaw dëkke tooñ ay mag rawatina borom mi be jaaw mm-hmm. di faral di waddal rangoo ñu mag mm-hmm. danay toroxal nit ci ñetti mbir mm-hmm. benn danga am jàngoro joo xam ni man man nga ko deewaale hmm. Hmm. waaw rawatina waajur nag surtout sa waajur surtout sa waajur booy faral di tàngal sa xolug waajur sa sukuraat dana metti torop te jàmm doo ko am ci àdduna yoral milliard hmm. billaahi danga nga toll genn ak jamono goo xam ni tawatalay tëral nga yaakaar ni dañ la yóbbu alaaxira te demagoo <laughs> ah surtout loolu. Oh. jigéen li koy tëj nag dugg ci armeel te dawloowul dara mën na koy turloo juróom-ñaari ëmb li ci gën a néew. te dawloowul dara. waaw léegi dawloowul dara mooy lan. mooy woddoo séer kese. Oh. <laughs> lu mu sol ci togay na ko xeeb. bu dee ci armeel lay jëm. dañ daan gis suñu mag ñi daan wóodoo lu mat ñett ñeent juróomi sër. laata moo tax téeméeri at. juróom-ñeent fukki at. wallaay ndeysaan ba kiris oh. koros commencé am la kiris tàmbali am. Euh, ci oh. fépp nag waxuma la kiris daanu kese de adduna bi sax dafa kiris. kiris koros gi day néewal kàttan te ñun jàppewuñu ko dara ña ko daan def ñu koy toppandoo ñoo ñu defuñu woon jàmm. Mm-hmm. ñun ni leen di toppandoo te xamuñu li ñuy def lumu. yàlla ni takk leen seeni tobay ormaal leen seeni bopp yow nga ni déedéet yàlla lii garaawut <laughs> ngay def loo xam ni boo siggee rafetut boo sëggee rafetut <laughs> moo tax il faut ni wax ak nit ñi mhm. sàkkuwunu nag ni nanu gëm ak nu ñàkki ba ñu mhm. gëm waaye nanu ko jaamoo yàlla rek te yàlla tax mhm. ah surtout loolu yi tëj doomu aadama mën naa la ci wax juróom-ñaar fukk yu bokkut. Euh, <laughs> man jàpp naa ne tey mosuma def émission bu gën a rëy émission tey bii nii parce que. Ah, li génn tëj doomu aadama waaw li génn lii génn nii. dafa dafa kawe. Hmm. dafa kawe te lii sëñ Moustapha ay mag a ngi nit a ngi dox. am juróom fukki at xamuñu lii ngay ak kilifa ak kilifa di moytu it di summeeku. ci kanamu njabootam boo amee ay doom yu sëyeegul du nuy gaaw di sëyi baa bu nu sëyee daanu ñëwaat moo xam kilifa gu góor la ak ku jigéen di summeeku ci sa kanamu njaboot même bu setul wicc sax summeeku nii rekk mhm. ni gis dara ci say awra moo xam soween la nu baal ma ci wax ji damay leeral rek ak mhm. jàngale moo xam yow kilifa gi sa jumbux la nga summeeku noonu oh. li lay njëkk a dal ma wax la ko. Mhm. rhumatisme. tax gone yëpp ngi jàmbat te sa njaboot ci boppam laa la wax. Mhm. sa njaboot ci boppam ab meeb dana leen yomb torop te sëy dana leen jafe baa bu du demee ñëwaat. <laughs> yàlla waxul na leen seen awra rek ci air bi. waxul loolu déedéet déedéet. <laughs> <laughs> waaye am na solo yàlla na nu dimbali nu xam lan la nu war a moytu. Mhm. normalement ku gis sa kilifa summeeku da nga war a dëpp. waaye ñun jàppewuñ ko <laughs> baa nga xëcc ak yére ni ko yaay murut moom jàppewu ko dara. te xanaa xamoo ni li gën a euh, li gën a garaaw kenn muuru ko xanaa xamoo dindi sa sér musóoru sa bopp. loolu loolu ëpp yow. musóor sa bopp. déggoo ma de. bañ a woddu te musóor sa bopp. waaw kay la laaj de moom kay la laaj <laughs> kay la moom laa bëgg leeralaat kay moom leer. waaw. soo wodduwul man nga bañ a rayuk malaaka. Mm-hmm. nit ñi nag gëmuñu ko ba léegi ah. te pourtant wax yàlla la. Mm-hmm. yent yàlla Muhammad jottali ko. alayhi <laughs> te nit ñi fi mu toll nii fi ne fi ne woddu lañ gën a fulaal farataal ko ngay def sëriñ bi oh. moo waral diplôme yi ni wut moo këyitu gerte yeyam <laughs> lu leer nu jariñ ñaata nit a jàng demoon ñaata nit a mel nu leen neex amuñu sëy pourtant <laughs> waaye maay ñaan yàlla rek nu dégg suma wax ji may wax oh. te wallahi kenn du ko dindi billaahi kenn du ko dindi yàlla xam na ko <laughs> macha allah jërëjëf sëñ Moustapha xam naa ni mu la toppee fi mu nii am na ci ñoo xamante ni moom. ak ma tegal la ci sax fa koy tëjee. doom moytu di toog ci lalu kilifaam. moom seen moom bu dee gàllankoor am na ci moom Sénégal ma xam ne doom yi xaaj yëpp. gàllankoor moo tax doom dana tàmbali muy neex ba muy ndaw ragaloon toog ci lalu kilifaam day neex waaye bis bu yëgee ni war na ci toog rek mu ngi commencé di am jafe-jafe te yëgu ko. ñun defuñu ko muy dara ma dollil la ci beneen jigéen juy sëy di wa fanaanoog sa waajur wennuk lal bu dul ngàntuk feebar waroo bokk ak moom lal dangay war di orma di tëdd ci suuf muy tëdd ci kaw billaahi wal kitaabi bu dee sëyu da nga sëy ndegam yaa ngi bokk ak moomuk lal bis boo yëkkatee sa tànk gaañ ko te waxu la ko ndax jàpp na ni yéen a bokk ak lal am na lu la topp mën na la um laa xawla ci gàttal. seetetetetetetet non sëñ Moustapha sëñ Moustapha. non wa in yaatoo comme Ousara Tufa doo loolu kese la nu bàyyi xel loolu. la ilaha illallah oh macha allah. mu ko def man jàpp naa ne ko réew mi moom ah, xëy na sunu borom ak ak yërmande. yàlla waaye yërmande yàlla bare na waaye ñi ngi topp yërmande yàlla ba léegi. moo waral nit ñi di nu rang. waaye est-ce que jotul nu war a dimbali nit ñi ni lu waral sangu yu métti yi mu taw a sotti. lu waral diplôme yu bare yi te liggéey amut. lu waral alal ji di bare te kenn mënu ci barkeelu am na ko yori ay milliards te leer na ni ko fanaanu nag mbokk mu fanaanoowul ak 1000 francs waaye amul xolu jox ko kon feebar am na am na lu xew ah waaw te ne nu mi ngi dox. billaahi dara doxut. dara doxut dara doxut. <laughs> yàlla xam na ko. wallaay ndeysaan. waaw <laughs> jërëjëf jërëjëf Cheikh Moustapha jërëjëf ci ci leeral boobu waaye jërëjëf ci ci ci ci ci ci ci maanaam mm-hmm. gindi waat bi nga xam ne fi ne yaa ngi koy mm-hmm. gindi askan wi macha allah yàlla na yàlla taxaw. bokk na ci fi ma bëgg ñu dugg fa tey ji mm-hmm. mooy dañuy faral di gis sëriñ su bëri. bëy. ak ni mu bëree coow. waaye bëri waat na sëriñ soo xamante ni. lu lu ñu wax dugal ci bëy mhm. ñu bëggoon xam nag tey jii nga waxtaan ñu tuuti ci bëy ak ay bagaasam mhm. lan la mën a dimbalee doomu aadama bi waaye lan la mën a yàqal tam doomu aadama bi wëral téeméeri armeel mhm. <laughs> fukki bëy bu fa xar duggee dañu ko fa yóbbaale waaye du fa dugg dañu waroon laaj lan la béy di wuti ci armeel ba pare <laughs> soo ngay xool lan la war a wut ci biir nit ñi ak nan lan koy jëfandikoo ci biiri nit ñi béy alalu jinne la am na lu bari umpa na nit ci armeel te béy xam na ko mm-hmm. bàyyi xel lool mm-hmm. ñaareel bi ci tegu ay béy la ñuy wax béy bu nekk ak ca la muy dox ca couleur ba ca façon ba ca jëfin wa ba ca gaaf ga moom mbay moo tax moo waaw ma man la wax ñaari tànki bay ca kanam wax la ñaari tànki bay ca gannaaw mhm. bu ci nekk ak boo ca fekkee lii lan moo ca war waaye lan nanu toppatoo lan la bay di def ci armeel ba pare te te bëri waa na heure boo duggee ci armeel fekk fa bay déet li ma la wax dafa leer pourtant béy rek amut mbaam a ngi fi ginaar a ngi fi. wallaay te pourtant ginaar a dàqu naaw xanaa. moo waroon cëppi cëppee fu ne. <laughs> moo tax ma ni la lan la béy di wuti ci armeel ba pare. léegi moom lu mu fay ak béy bu dugg ci armeel lan lay wund xanaa xamoo béy boo jàpp ci armeel yombul nag fexe ba jàpp ko ni ko nus ci armeel nga hmm. jël nopp ndeyjoor bi <laughs> ni ko man <laughs> defan laa bëgg. waaw nga ni ko gudd fan rek ngaa bëgg gudd rek laa bëgg xam nga bëy yorul gudd mhm. xam nga ameew ko de waaye comme xamoo li muy def ci armeel bi mhm. maandul ci bëy <laughs> wax ko loolu rek bàyyi ko mu dem mhm. <laughs> ah wax ko loolu rek bàyyi ko mu dem <laughs> ah xoolal li wax nag yow wëral nag ba mu tas. Mhm. fukki armeel ba téeméeri armeel bay rek nga fay fekk. donc <laughs> damay imaginer bërki démb rek bi may dugg ci armeel fekk bëy yi di dàqante. ci kaw loolu kay sëriñ bi li wax kay dama ko xam. <laughs> mel ni sump ci armeel ak nii maa ci armeel affaire la nag. <laughs> kon ay kaa la kon fi mu <laughs> moom béy waaw ah, waxaguma la nag bu génnee ci armeel yi li muy liggéey ci armeel yi béy bu xonk ci lan lay dox mhm. béy bu ñuul ci lan lay dox mhm. béy bu weex ci lan lay dox <laughs> béy bu lii weex mhm. béy bu lii xonk lii lii ci lan lay dox pourtant làmminu béy day tax ba bu dee dangaa dër pour mu dañ man nag nee nañ ma dindil sa dër gi ma ni leen xalaatuma ko làmminu béy laa la wax de day dindi dër ay alxuraan nga bind ko ci làmminu béy day dindi dër yow mi dër bay fëggatu yow mi dër bay fëgg sa bopp man nag mënuma xas dërkat yi ndax maa gën a dër ñëpp waaye man dindiwuma sama bos waaye yow mi bëgg dindi laa wax <laughs> maa la wax lii ci béy te oh. tuuti laa la ci ñamal waaw ah. <laughs> ah, moom béy waxaguma la béjjënu béy mm-hmm. waxaguma la bagaas yi béy waxaguma béjjën ba lañu cay suuf te boo demee ci yaasin yéemu ci bagage yi béy boo demee ci yaasin yéemu ci bagage yi bukki tey nag béy lan la wax mm-hmm. moom béy suy béy waaw tarkallu <laughs> tarkallu xam nag gaa ñi lijjanti ci armeel yi ba pare soo ngay génn ci gannaaw armeel yi waaw kay <laughs> léegi léegi moom lan la war a def ci armeel yi fi mu toll lan la war a def ci armeel yi moom béy Cheikh Talla xanaa xamoo béy boo fekk ci armeel mu riisu ci garab gi mm-hmm. nga riisu ànd ak moom bark yonent bi doo am jàngoro joo xam ni sa der daf lay topp doo ko am yàlla ko ko may loolu moom moo tax may bëgg ni wax ci xam-xam wallaay ndeysaan oh <laughs> ah. ci gàttal <laughs> wallaay yàlla bindul dara ci hasard. déedéet hasard na Serigne Moustapha ni fii laa man tàmbalee. Hmm, fii laa mën a yem wala xamuma rek. waaye amul moom wala manul ne moom loolu waxi dof la. ba nit ma nee man a may moroomi nit derit ba mu sëbi dundam. Mm. nanu xam ni leneen pourtant derit ja mënoon na ni derit ji sama derit la. waaye am na keneen ku koy deritoo ba faatuwu fa kon xanaa yàlla. bare màndi xanaa sunu boroma a xarañ te tedd bu ko neexoon nu def ko mu segg ko mu ni derit yi boolewuma ko waaye béy nga ba laaj wallaay béy tey ci béy laa la wax wallaay ci béy li ñuy wax te dama la ci ñamal tuuti nag moom lan lay def ci biir armeel dëgg-dëgg man fi ne foofu loolooy sama problème fi ne man ma Moustapha. waaw déet wax naa la lenn loo xam ni nit a koy wër ba tas. te ci garab gi la garab goo ko fekk mu wéeru di riisu. nga ànd ak moom riisu ca beneen fas ba laa la wax benn yoon kese jarul ñett jarul ñeent nga ba ko fa mu continuer bàyyil xel rek nga gestuwaat béy bi dana la xool yow <laughs> waaye nee naa la doo am feebar boo xam ni der buy bobbeeku lay doon te xam nga ni lakk day bobbi der xam nga kon doo ca lakk mm-hmm. benn mm-hmm. bu la nit doon sotti asitit yàlla dana la dimbali ba du la laal ba nga loola ndax boobaa wax ja day dàqu tuwaat kàlla tuwaat kàlla wax nga ko léegi nii eh, nee nga tudd nga ci bëy ba laal ci yaasin waaye tey jii ndam yaasin moom bokkoon na tey ci suñu question ndax am na loo ñu ci jotoon a junj ñu jotoon cee waxtaan waaye tey jii bëgg nañ nga mayaat ñu ci secret bi nga xamante ni mooy secret yaasin suratul yaasin ci boppam te xam naa ni yow sa yëfa bokk na ci say yëf yow tey lan nga ñu ci mën a indilaat mayaat ñu ci tey ndax gaa koy sàkku nag pour xam ci dara boo demee ci jinne yi mhm. xam na nu yaasin bu baax ba di jàng yaasin ba gën laa mokkal yaasin wallaay ndeysaan <laughs> yaasin moo doy waar te nee naa la pardon nan ma baal yaasinu ah, <laughs> jinne am na lu mënul faj amut yaasinu jinne ak garab gunu naan ngi gis yaasinu jinne ak garab gu gunu naan randa yaasinu jinne ak garab gu gunu naan ngeer hmm. yaasinu jinne xam nga ngeer lu tax foo dem yóbbaale ko di ko waxaale boo waxe boole ko ca hmm. ngeer day kilifa ci àll bi hmm. ngeer waaw ñun nu yaakaar soj rekk lay faj te day faj dof ngeer day faj dof ku tàkkale ko xelam billaahi ngeer day faj dof ngeer laa la wax ci yaasalaamun nag jëlal ngeer jël yaa nga juyaloo ni nga dugalante taat yi féete fii bopp bi féete fii nga bàcce bàccee ko dof ak la ngay jàng nag moom ngeer <laughs> waaye maa ngi la wax ci ñi nga gis ak ci rand ci yaasin <laughs> moom yaasin ci yaasinu jinne waaw hmm. <laughs> gis nga yaasin hmm. yaasin dafa doy waar te yaasin nee naa la am na noo koy liggéeyee def fukki gaw ak ñaar fukki gaw ak ñaar ngay def ci yaasin mhm. nee naa la mën nga dund ba dee oto police du la yàpp moom yaasin la ilaha illallah am na lu ca des nag ndax nit ñu jubadi ñee tax mhm. Mhm. <laughs> moo tax waa nee na sëñ bi moom day junjee rek. yaa mu junjul woon musiba. wallaay yaa yey. <laughs> yaa yey. Seex Taala Yaasin lu tax bu nit di sukuraat ni koy jàngal kon lan lay dégager. <laughs> bu hmm? grave waaw. ku toll ci sukuraat yaa ngi may laaj Yaasin. <laughs> gis nga wat samaay wat taarixi ji. Mhm. pourtant am na ñuy jàmbat de ndox mu woyof ci góor mhm. waaye boobaa dañu comprendre rek ndeysaan billaay dañoo comprendre <laughs> sul bi wattaraay bi <laughs> wallaay yàlla xam na ko eh, gis nga Yaasin mhm. beneen affaire la moom mhm. <laughs> Yaasin sécurité bu doy waar la Yaasin da daanu rab mu ni la du fi amee <laughs> waaw Seex Taala mm-hmm. yaasin dafa yéeme moo tax saaru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam turam la it nag mm-hmm. waaye ay bagaasam la mm-hmm. te nanu ko laaj ñett doon di ko xaar danoo toogoon waaye la leen loo ba mu jàng pourtant mi ngi ci biir yaasin te fa mu ko jànge woon te yaasin la waxaguma la de innama amruhu isa arada sañ xolu kun a kun gi lu mu kune kon wallaahi kon. ah ah loolu mu rekk doyoon na hmm, sëkk. wallaahi day la salaamun ya hmm, hmm. <laughs> te seetaan la benn yaasin man nga ci jàng 41 yaasin. ci benn yaasin bi. waaw ci minute une minute ba deux minutes sax du ko mat benn yaasin man nga ci def 66 yaasin. sékkëri la nag. ci yaasin. <laughs> naa la indil yaasin ak laurier. naa la indil yaasin ak persi naa la indil yaasin ak ñambi yaasin moo doon loo xam ni mënoo ni poids mënoo ni passeport diplomate bu mu doon moom dépassé na lool moom yaasin wax kawe na fépp kawe na lépp te nee naa la lu rab dëgër dëgër yow mi jàng yaasin nga mokkal ko di ko jëlee sa xol bii di ko jàng nit ki danaan gàng daan ah gaa ñi tëdd fii di nelaw de moo tax léeg-léeg sama taabal yi dama koy àndal de <laughs> ah looloo gën a de. <laughs> tarjumaan ja ñëwagul. waaw waaw. kese ci lool <laughs> Cheikh Moustapha tey lan ngay may gaañi ndax nag soppe yeeg am di jàmm yi lay topp. waaw. bëri nañu lool macha allah rabbi mhm. te nee naa la gannaaw nag moom sëñ Moussa moom moo tàmmal nit ñi di leen may mhm. dese naa juróomi question yoo xam ne moom xajutul ci jotaay bi mhm. yooyu moom dañ koy boole yi ñuy war a waajaat xanaa bu ñu jógee ci ziar général bi daal di koy tënkaat defaat ko émission bi ndax tey jii lii moom buñ ci duggee ci leneen dañ koy jaxase <laughs> yow léegi lan ngay xam ne mbokk yeeg soppe yeeg am di jàmm yi tey benn saar dafa am bu doy waar muy dañuy wax bopp golo bopp golo <laughs> am na fu bopp golo baaxee nag. Euh? na nga gaañ di xamee noonu. Cheikh Taala Isaa Jaa boo ko jàngee. Mhm. ba yegg ca kaana tawaaban ji. Mhm. nga def ko téeméeri yoon. Mhm. Hmm. yii nag daawul doon sama yaafeer. Ah, waxi tey kay moom mënta ñàkk yaa ngi dégg. kaana tawaaban ba téeméeri yoon. nga wut rand. rand. reen. wut reenu new. Hmm. boole kook moom. Mhm. dugal ko sa kër. Mhm. amul njaboot gu nuy yërëm ci àdduna. te te doo toog mukk ni sama njaboot gi seytaane leen sonal. benn maa la ko wax. Mhm. ñaareel bi ci tegu. amul njaboot gooy am muy wetteeku ca mbedd dama ñëw di dugg ni nu dafa naan sàngara wala dafa njaaloo wala dañ koy jiiñu ko du am. dama ko dagg nag <laughs> ndax li ma ci bëgg bi <laughs> ci gàttal tubarkalla tubarkalla macha allah mhm. amati na solo wax dëgg yàlla boppu golo nag laa wax ay bagaas la mhm. waaw boppu golo am na noo koy dugale sa kër mhm. na ni sacrifice ci réew mépp xam nga golo daa bari ñap-ñap te jàpp golo fi gën naqadi na torop gis nga na ni sacrifice na ko ne di def lu ne waaye sa njaboot dana mucc da mucc te mu musiba doo ko gis ba ba ngay sàngoo suuf allahu akbar nga ni kaana tawaaban mhm. boobu téeméeri yoon bindal ba ëffal mhm. nga pour nga def xool dama ko maye nag yeggalewu ma lépp ci bopp golo bi rek la koy ëpp dugal ko ci golo nga wàqi sa kër suul ko fa laa ilaaha illallaah non macha allah. <laughs> kaddu yu mujj yi lu muy doon tey. <laughs> ah mooy ma santaat yàlla. ndeysaan. santaat mbokk yi ñuy teewul. Mm-hmm. santaat soppe yi. bëgg nu bay lox. Mm-hmm. waaye di jéggaluwaat. Mm-hmm. su dee wax yi may wax sax am na njumte ndax jaamu yàlla rek laa. waaye di ñaanalaat. ñi dëkk di ñaanal suma waajur man waxuma sax man ndeysaan mhm. Mhm. ndax sama waajur fonkoon na ma fonk goo xam ne daan naa ko wax ne ko na yàlla yokk samay at dollil la mu ne ma yéene boobu maa la ko ëppale kon kooku lu waay def mhm. wallahi defaloo ko defaloo ko ko man nga ko defal maa ngi leen di ñaanal na yàlla guddal fanum ñëpp yal na yàlla suturaal ñëpp di dénk nag li may dénk sama bopp Seex Taala hmm. gàllaaj goo mën a am xam nga lu koy toj hmm. tooñ tooñ hmm. day toju gàllaaj na nit ñi moytu tooñ te nu bàyyi xerit li ma wax ci saaga tey wax ni it maa ngi léeg-léeg di massawu léeg-léeg sax sama mbokki sëriñ si dan may mere ci maye yi may maye waaye ma leen ni kontaane ci mere gi may mere ndaxte man askan wi rek ma ñor ma am ci it mbokki sëriñ yoo xam ni mhm. wallaahi danu ma boppoo mhm. danu ma bennoo mhm. danu ma fonk wallaahi danu ma yéene yëg-yëg waaye nanu xam ni delloo naa leen ko te di leen ñaanal yàlla nit may ñaanale yàlla yal na yàlla doole sutura lii laay dénkaane Cheikh Talla macha allah mhm. jërëjëf Cheikh Moustapha ci waxtaan bi waaye ci leeral gi waaye tam mhm. ci faram fàcce gi ndax mhm. nee naa faram fàcce gi moo tax tey jii fi mu toll ni man ma yëg sama bopp tey ci jotaay bi ñu def tey jii nii wax dëgg yàlla macha allah ndax te te li ngay wax ci sëriñ si nga xamante ni ñi la nawloo ñi la sopp lool ñi ngi la bëgg lool am naa lu ma ci xam ndax damay toog ku ne damay toog ku ne ku ci ne damay toog bëri nañu may toogal dëgg la waaye ku ci ne na liggéey bi ñuy liggéey hmm. moo laajut nettali laajut waxe hmm. waaye daal bu ñu gisee ku def lu baax hmm. danañ ko junj ci biir jotaay yi bu ñu ko gisee ku def safaan ba itam danañ ko tànkam lu ba duñ ko gis duñ ko dégg duñ ko bëgg a xam wallaahi kon li ngay wax ni am naa luñ ci xam lu ma ci xam macha allah kon ñu ngi lay santaat bu baax a baax di la ñaanalaat yàlla suñu borom mu bàyyi la fi ba ca kanama kanama kanam ndax tey jii nee naa mooy li ngay wax ñi lay mere ndax ci lii ngay maye yi ngay def nii bàyyi wuñu xel askan bi mhm. ndax bu ñu bàyyi woon xel askan bi mhm. duñ la mere ndax dañoo war a xool askan wi tey lan la ñu soxla ñu war leen cee taxaw mhm. waaye bu ñu xool ni rek nañ nañ nañ xam loo xamante ni askan wi nañ ñëw di leen jox seen i koppar ngir ñu leen cee jëmbali déedéet waaye nañ dimbali askan wi ngir ñoom ñu mën a dimbali waat ñeneen ndax loolu mooy tax adduna bi mën a gën a mucc hmm. gën ñi mën a gën a mën a jëm hmm. kanam macha allah rabbi hmm. kon ñoo lay sant bu baax baax di la ñaanal suñu borom bàyyi la fi ba ca kanam ak kanam ak kanam ak kanam ak kanam ak kanam waaye itam ñaanal tamit booleem soppe yi am di jàmm yi xarit yi wóllëre yi ñi nga xam ne ñu ngi lay topp saa su ne ci biir internet bi dëgg la moo xam ci ci youtube bi ci Amsa TV mooy la télé solution moo xam ci tiktok bi moo xam moo xam ci facebook bi moo xam ci twitter bi ci instagram bi fu mu ci mën a doon ñu fay suivre Cheikh Moustapha ñoo mhm. ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ñoom it kenn ku ci ne mhm. fa mu nekk lay bëgg-bëggam mhm. lay yéeneem lay mébétam suñu borom mi dul jeexal dara yal na ko yàlla dimbali ba jàpp ndalal ko loolu ci daraje yonent yàlla mu xamee waaye itam sant bu baax a baax moom technicien bu mag bi nga xamante ni macha allah wax dëgg yàlla tey jii am na foo xamante ni mi ngi fay yóbbu liggéey bi mi ngi fay yóbbu liggéey bi man wax rek la ñuy def man wax rek laay def di laaj nga di ma tontu may. du mhm. laaj ngay tontu rek mhm. waaye moom ñoom ñi xam ne mhm. ñoo yor liggéey bi. di ko taxawee. dañuy nekk maak moom ci lu bare bare. gis naa yitte ji mu ciy def. gis naa pas-pas bi mu ciy demee tamit macha allah. kon nag ñoo ngi koy ñaan lu a baax suñu borom gën a dëgëral taxawaayam. yokk ay xéewalam. waaye itam gën a yokk xam-xamam. ndax xam naa ne yéen ji mu am du lii. Ah, fa mu bëgg ñu yegg. du lii te du fii. kon yal na yàlla taxaw ko. waaye yal na yàlla defal réew mi jàmm. musal ñëpp amiin muccal ñëpp te mosal ñëpp ci darajee Seydina Muhammad di leen xamal ni daal Amsa TV mooy télé solution mm-hmm. mm-hmm. jii daal solution ñun moo ñu tax a jóg mm-hmm. te insha allahu rabbi taala def naa lii ngeen ni gis ci waxtaan bi solution weesootu ko wallaay yàlla kon yal yàlla gën a dëgëral taxawaay may ñu ñu fekkee waat lépp loo xamante ne mi ngi suñu kanam daal yal na yàlla may ñu ñu fekkee waat waaye itam ziarat bu baax a baax waa daaka waaye ziaraat bu baax a baax tey jii ñi nga xam ne ñëpp ñi nga dëgmal Tiwaawan ci ziar général ba hmm. waaye sant ñëpp gërëm ñëpp jox leen dig daje insha allahu rabbi taala ci hmm. beneen jotaay ak seen jotaay yu xam-xam bi nga xam ne moom lañ leen jagleel fii ci biir Amsa TV hmm. jërë jëf wasalaam